jërë ngeen jëf mbokki Actubuzz TV la suite d'actualité du Sénégal naka ni loolu la ñuy daal di dikk ak yéen di leen indil ay xibaar yi nga xamante ni daal di nay xew. fii si réewum Sénégal dëkkat ak yéen rek kii di capitaine Touré euh, gannaaw rek bi nga xamante ni defaloon nañ ko ab kañaak bu tolloon si euh, vingt million francs CFA yaakaar naa ni sax kañaak bi daldi nay ëpp li nga xamante ni rek moom lañ dige woon pour kañaak euh, bi sax ba mel ni rekk benn ab oto sax daal nay tegu si li nga xamante ni moom mooy kañaak boobee. bu loolu weesoo euh, kii di euh, Barthélémy Dias euh, bu maire de Dakar daal di woolu ki nga xamante ne rek mooy capitaine Seydina Omar Touré daat koy rek proposé li nga xamante ni rek mooy ab liggéey maanaam embauché kii di capitaine Touré naka ni loolu rek gannaaw bu mu ko wooloo proposé ko loolee boobee liggéey dafa mel ni capitaine Touré rek daal di nay accepté. li nga xamante ni rek moom la ko euh, Barthélémy Diaz daal di koy euh, proposé bii di maire de Dakar moom capitaine Touré Barthélémy Dias daal di koy euh, nommé li nga xamante ni rek euh, moom mooy euh, conseil technique charge de la sécurité ba tey si capitaine Touré Abou moom la ñuy daal di dikkee. Mm. nit ngi yaakaar naa ni ñoo ngi gis ki nga xamante ni rek mooy capitaine Touré gannaaw bi nga xamante ni d'accord nañ ko fële sa gendarmerie nationale ba tey Sénégal yi dañ koo jox bopp. dëgg la mo Elmo li nga xamante ne mooy capitaine Touré gis nañ ne boobu ak léegi ba léegi Sénégal dañ ko jox bopp jox ko li nga xamante ne mooy ah, mooy ah, askan jox ko tamit li nga xamante ne peut-être xëy na sénégalais comme yërmande gi muy am ci doomu aadama xëy wane nañ ko fii te sénégalais lamdaar yi ñuy wane seen bopp ci li nga xamante ne mooy ci problème bi dal ci kaw ah, ah, na pour mu liggéey ak moom ci yoo xamante ne loolu tamit ba état bi tamit ah, du ci defal yeneen conditions yi pour di ko fa jëlewaat tamit ëllëg voilà non état bi je pense kenn du kii euh, nga li nga xamante moom mooy ab policier mhm. moom nekkoon na ab professeur je pense que nag après dañ ko daal di euh, dakkaat foofu noonu ba tey jii ba Barthélémy Diaz euh, daal koy woo pour nommer ko li nga xamante ni rek moom mooy euh, conseil technique charge de la sécurité bi nga xamante ni moo ëmb si li nga xamante ni moom mooy moom ak moom ñoom ñaar ñooy daal di liggéey ensemble yaakaar naa état bi moom amu si benn wàll pour pour côté boobu abul comme li nga wax léegi léegi comme li nga xamante ni comme état bi amu si benn responsabilité amu ci benn yoo wàll comme li nga xamante ne mooy mooy capitaine ñu mu wax ne que mu ngi day dellu dëkkam dem sàmm xam naa ne dootul sàmm ji fi mu ne nii. waaw dootul sàmm sàmmati parce que loolu sax moom la nit ñi daal di déglu yaram daw. Hmm. moo tax ñu euh, lancé woon kañaak boobee euh, ñu ko lancé woon fan yi la passé ba sax macha allah euh, li ñu daal di digge woon rek di vingt millions yooyu daal dinay weesu loolu noonu parce que instant bi nag passé woon na vingt millions yooyu ba dugg si trentaine de de de millions. ak euh, benn oto bu nga xamante ni rek daal nañ ko koy euh, jox moom capitaine Touré mais yaakaar naa ne liggéey bi euh, avantage la aussi tamit si moom bu baax a baax. waa liggéey bi avantage bu baax a baax ci li nga xamante ne mooy capitaine Touré parce que liggéey bi tamit xam naa ne peut-être dina am loo xamante ne dina ko changer ci côté li nga xamante ne mooy ci côté sécurité bi nga xamante ne moom nekk na ci. te moom def na formation ba pare jaar gendarmerie nationale xam naa am ci ay diplômes yu bëree bëri bëri kon déjà li ko liggéey bi nga xamante ne mooy Barth jox na ko mooy nekk na loo xamante ne tey. luy maam lu rafet la daal ci ci côté ci sénégalais lu ñu rafetlu la daal mhm. lu ñu rafetlu la parce que doomu réew mi la tamit xam nga ci ca la jàngi fii la amee lépp lu muy am mu faciliter xam-xam pour la baax def hmm, waaw taxawaay boobu la baax def mais nag gars yi nag ñoo ngi naan est que Captain Touré du dugg si li nga xam mooy làmb politique daal dugg li nga xamante moom mooy yeewu askan que je pense que ni nit ñi ñoo ko doon euh, proposer ay ñoo ñu dégg ay xamante ne moom mooy élection législative yi ñuy waaj a ñëw maanaam pour mu nekk euh, euh, euh, maanaam député mm. ba tey gars yi ñoo ngi koy polémiquer noo gisee loolu amul. loolu mun na nekk parce que moom actuellement nii que parce que sénégalais yi euh, am nañ confiance boo xamante ne capitaine Touré peut-être na leen ko. Mm. ba tey tey bu déposé pour doon député sénégalais mën nañ ànd ak moom. Mm. gunge ko ba mu dem toog assemblée. Mm. Mm-hmm. gis naa loolu. gis nga loolu yaakaar naa ni loolu moo nekkoon comme information ba tey di leen fàttali rek kii di euh, Barthélémy Dias moom moo nommé woon capitaine Touré bii leen nommé di euh, conseil charge di conseil technique charge de la sécurité. Mm-hmm. moom Euh, di euh, euh, le 19 le 19 avril 2022 Abou. Ah, ah mhm. waaw 19 avril 2022 li nekk na bis boo xamante kenn dootu ko fàttati ji ci àdduna nekk na loo xamante ne tamit histoire la tamit ci jamono yi ñu toll parce que nekk na loo xamante ne tey nee naa ne képp Sénégalais te yéenoon nga capitaine Touré mu am liggéey bu mel nii mhm. ah, moom baax tamit ñu koy jaajëfal bu baax baax a baax moom tamit di wax ne def na yëfu Sénégal jàppale na mbokkum Sénégalais. waaw mbégteeg contentement rek loolu lañ daal leen comme information jaa ngeen jëf di jaajëfal gaay yëpp. rescue